2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds CIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. Euh, d'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement à, euh, au programme du président Macky Sall sur le programme euh, sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place euh, l'année dernière permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, QRP, Sudubet et euh, BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la reste dans cette région. les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la lenaze La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONAS a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONAS pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONAS. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise. Nous internet Diaspora TV bu ñu tuddee gestion de la cité waaw gestion de la cité nag bu ngeen ko déggee mooy euh, ñu wax rek ci tolluwaayu réew mi lépp lu fi mën a xew ci politique économie ak sociale dafay jar nag bu boobaa ñu daal di jóg dem seeti kilifa yi nga xam ne ñoom war nañoo mën a wax ci mbir mi daal di jox ay explication yu leer suñu internet yi ak képp kuy sénégalais ba ñu mën a xam ci lan la ñuy tënku looloo tax nag tey ñu ñëwoon seet si Moustapha Diakhaté ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo tonton Mustapha nuyu nañ la. Euh, maa ngi lay fay euh, soxna di la nuyu di nuyu waa diaspora bi yëpp diaspora TV d'abord ak ñi nga xam ne mooy diaspora bi ñu seetaan ak Sénégal yi nga xam ne aussi ñu ngi biir réew mi di ñaan yàlla mu may nu taw féex ba liñ ñu fi nekk wax nekk dëgg tam njariñ. jërëjëf euh, tonton Moustapha léegi nag comme yow yaay suñu premier invité ci émission bu bees bi di gestion de la cité lan ngay wax suñu internautes yi. boo bon d'abord nuyu leen ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi maa ngi leen di nuyu ñu nekk bitim réew itam maa ngi leen di nuyu di ñaan yàlla fa ñu nekk ñu nekk fa ci jàmm surtout ñu nekk bitim réew ndax tukki yombul te jamono ji noonu day jamono ju xaw a metti même al ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew yu am doole sax ñi ngi ami jafe-jafe ñaan yàlla rek mu ñu gën a góorgóorlu te suñ borom sàmm leen ba ndog yi am ci àdduna bañ a agsi ñoom. jërëjëf. waaw euh, tonton Moustapha nag suñu premier laaj dafay nekk ci Sonko mi nga xam ne dafa accuser mambay Mbaye Niang détournement gestion du Prodac bi nga xam ne budget bi mi ngi toll ci 29 milliards leader des patriotes bi nag nee na moom dafa yore rapport ug e bi nga xam ne mooy firndeel loolu mambay Mbaye Niang daal di ne ko na indi rapport boobu te di ko laaj nag 9 milliards ban leeral ak jàngat nga am ci loolu waaw jërëjëf xam nga <clears throat> Sénégal c'est un pays c'est un état de droit état de droit mooy ay nit bu ñu amee jafe-jafe li jaadu mooy ñu dem fi ma xam ne doore benn pour ñu atte leen effectivement Ousmane Sonko dafa jiiñ Mame Mbaye Mame Mbaye Niang le ministre Mame Mbaye Niang ay luubal ci wàllu Prodac ah, wax ne yor na ay documents yi koy prouver yu koy firndeel ah Mame Mbaye porté na ko plainte waaye li nga xam ne moom a ci xaw a jaaxal rek mooy moom li mu jiiñ Mame Mbaye ñetti journaliste jiiñ nañ ko ma mbay mu yóbbu leen tribunal ñu ñëpp dañu leen a condamné bi des moom ci boppam daa waxoon ne moom yor na document yi te li ñu seetlu mooy jamono yi am na benn meeting bu mu demoon nee na ci internet la ko gis su ko defee li nga xam ne moom lañ mën a jàngat mooy en réalité Ousmane ko dafa tab baat bu ñaaw teg ko ci Mame Mbaye rek mais amul benn lu koy firndeel d'abord document boobu mu wax amut maanaam document IGE buy jiiñ ma mbay détournement vingt-neuf milliards amut document IGF mooy inspection des générale inspection des finances bu nekk ministère de l'économie et des finances buy jiiñ ma mbay détournement dañuy amut euh, su ko defee li ñu ci mën a jàmb rek mooy bu ñu defu ndànk bu ba xam ne doone benn lii tooy ci côté Ousmane Sonko lay génn rawatina ci nag mooy lu mel ne boo ko jiiñee nit yoon daf ne ñaar fukki fan ak ben avant bis biñ lay wo da nga wara jox document bi justice waaye ba suñu joon yalla tay Ousmane Sonko joxut ben document justice pour wone ne lim doon wax deug la su ko defé même buñ doon daan ba ci bisu tribunal bisu atté bi mu indi document document bu justice du ci kon autrement dit euh, gisuma lu téñu man ko koo condamné maanaam la dalon ñett ñu jëk ña dana dal Ousmane Sonko mena nak ñaata awer lañ koy condamné ñaata lañ ko lolou ma xamaj dara waaye dara mënut a tee ko nañ wax li wax du deug dafa waxee bànnee xam rek mais li wax bi mu ko wax tëru ko ci xam-xam. E e. waaye xam nga lapsus mën naa am xam nga lapsus man lapsus yoon mën na ko nangu waaye nag lapsus boo ko répété waatee euh, day xaw a doy waar te nag wax dëgg yàlla gis nañ mu répété waat ay yoon di dëgëral ñi li mu jiiñ ma mbay ne dafa dafa luubal alal ci mbirum Prodac alors ko loolu dafa amut amul benn document bu IGE wala IGF e bu ko bu ko wane ñaari document yooyu wax benn amu encore in fois kon jàpp naa ne ñetti journalistes yi ñu jot a ba daan leen juróom benni weer kaso ak i amande Ousmane Sonko bu ko bu ko yàlla dimbaliwul lool la dal ñooñee dina ko dal. waaw mais démb bi ñu demee dañoo dégg ñu ne moom jotul convocation loolu moo tax sax ay avocat demande demandé ñu annuler affaire bi daal di koy joxaat euh, beneen date. waaw xam nga loolu moom bi mu ko waxee man maa ko jëkk dégg ci avocat am maître Ciré Clédor Ly waaye bu ñu doxee tuuti ñi nga xam ne mooy mooy tribunal dañoo génne décharge bi nga xam ne bi ñu huissier bi mu yóbboo document bi kër usman Sonko Ousmane Sonko moo wax mbokkam mu nekk ci këram mu mu jël document bi déchargé ko kon Ousmane Sonko moom jot na document bi parce que en matière de tribunal même say ñi nga dendal ñi nga dëkkandoo sax bu ñeen ko joxee rek baax na délégué de quartier bu leen neexoon jox ko ne ko yët ko kon moom jot na ci document benn soit moom waxul dëgg Ciré door Ly ne jot na document bi wala boog cré si déclaré dolli xëy na daa inventé ay waxi boppam en gros Ousmane Sonko effectivement jot na document bi ah waroon naa euh, waroon nañ ko mën a àtte démb maintenant dàq nañ ko bu le 16 mais li wolof di wax rek wiiri wiiri jaari ndaar yi quoi que fu mën a jaar dina jàkkaarloog Mame Mbaye te nag lii tooy ci moom lay jóge ndax moom moo moo teg tuuma yu dul dëgg ci ci derub Mame Mbaye Niang waaw yow nag buñ la déggee ci ni nga waxee dafa mel ne dafa am foo ko teg ndax nee nga Ousmane Sonko dinañ ko condamné te pare buñ ko condamné du bokk ci élection yi. waaw ah, loolu nga ci ñaari wax yu wax bu njëkk bi maanaam daañu ko condamné loolu waxaat naa la ko léegi buñ daa du bokk ci élection yi waxuma ko cest ni ko ni ko journaliste bi génnee waxuma si que wolof laa doon làkk moom mu traduire ko wolof xam nga nag euh, da ngay dégg wolof lool wala ak tubaab lool doon mën a traduire wolof ci tubaab mu leer nañu dama ne buñ ko tëjee lu mat juróom benn weer. du bokk ci élection loolu bokkut ak buñ ko condamné parce que mën nañ ko condamné deux mois mën nañ ko condamné un mois mën nañ ko condamné trois mois mën nañ ko condamné cinq mois mais bu xasee nekk six mois rek loi code électoral bi day dal ci kawam dootu mën a dootu mën a bokk ci élection yi loolu laa wax mais est-ce que du looloo tax kon ñu bëgg a profité ci affaire yi ndax boobu ba léegi day ah mbir yaa ngi bëgg a jaxasoo ci côté am de ay profité xam nga journaliste dafa am responsabilité yu rëy rëy ci réew nit ñi dañu leen di déglu nit nag bu ñu koy déglu lu muy wax la ne da ko war a peser fii li am mooy Mame Mbaye Niang moom la Ousmane Sonko kii moom moom la Ousmane Sonko tuumaal mu bëgg mu yóbbu ko ci tribunal ngi setalu deram kon mbir mi lu ca mën a am ci lor wu jëm ci Ousmane Sonko moo ko teg boppam parce que moo jël tuuma teg ko ci derub gor as gor nag bu ñu ko tegee ci tuuma bu ko neexee mu muñ bu ko neexee mu baale waaye su ko neexee aussi mu dem ci yoon loolu la Mame Mbaye def lu ca mën a am rek conséquence bu ca mën a am rek nga xam ne Ousmane Sonko aw làmmiñam moo ko teg li ko dal parce que nag Mame Mbaye li mu ko jiñ defu ko waaw ba tey ci Ousmane Sonko la ñuy des parce que problème am ak aji saar kenn umpalewul ne boobu ba léegi ñu ngi ciy topp te amagul fin mhm. boobu ba léegi ñi ngi wut ay preuve te taxul rapport médicalu viol bi moom contesté na ko léegi yow nan nga mën nan nga jàngatee dossier Adji saar ak sonk ba fii mu toll tey. am nga dossier bi ñaari jàngat la ci am bi ci des mooy li Adji saar wax Ousmane Sonko ne da ko violé du ma ci sori xaw ma ci dara man jullit laa jullit bu ñu jiiñee moroomu jullitam tuuma ju tol noonu la ko war mooy weddil ko ko ba ba muy xam ni moo ko def loolu man moom la ma lislaam sant moom lay tata Ousmane Sonko dama ko jàppi jullit comme man kon encore une fois li mu seq ak Adji Sarr duma ci sori par contre moom li ñu wax Ousmane Sonko li mu wax noonu waa Sénégal moom dina ci dana mën naa ko gëstu ak yow parce que bi yëf yi xewee Ousmane Sonko li mu njëkk a wax mooy xawma aji saar mosuma dem Sweet Beauté loolu jëkk wax bind ko ci page Facebook am wax ay xaritam ne leen mosuma faa dem wax ay responsable parti am ne leen faa dem xawma ko ñu toog tuuti mu dindi ko te sama def conférence de presse ne ay ne dem na fa xam na aji saar daana ko bës de fait déjà rek mu wax lu dul dëgg ca départ ba xelum sénégalais waroon naa dal tey ci ne kii am na lu mu def alors maintenant mu expliquer lu taxoon mu doon fa dem foofu laa jàpp ni ñun waa Sénégal foofu la su la ñu xalaat ndax daf ne dafa demoon ngir faju alors Ousmane Sonko mi ngi dëkk cité kër góor gi ñetti structure de santé ña fa yo xam ne dañuy faj am na ci benn cabinet boo xam ne kinésithérapeutie mooy seen spécialité rééducation fonctionnelle man foofu yóbbu naa fa sama jabaru xarit boo xam dafa amoon AVC ñu di ko fa rééduquer lutax Ousmane Sonko bàyyi ñetti structure santé keur cité keur gor gi ño xam ay barabu kay la ñu jangal ci université ba ñu xam seen métier di dem ci keur ay gone yu jigen nga fay faju ji kon faju yobbu ko parce que ñoom Ndeye Khady Ndiaye mënuñoo faj Adji Sarr mënut a faj ñaar mo wax la taxoon mu tan fofu dafa amul khalis bu da ngay député boy faju ci lu mel nonu 80 yi wala ba 90 assemblée moko jël en charge mais li am solo mooy bu dee kinésithérapie cité kër góor gi la doon fajoo ca ki cabinet ba fa nekk 10 000 francs de la séance 10 000 francs yi bu assemblée nationale fayee 80 pour cent yi kon moom 8 mille francs la doon fay assemblée fay 2 000 francs yi ci des kon ñàkk xaalis du lay wu mu fa tax mu dem parce que député bu amul xaalis itam assemblée moom mi ko jël en charge am na am na euh, moyen yu yu mu ko fayee bi coow li bare mu ne dañ ko complot ne Macky Sall Antoine Diome ak sëñ Bassirou gi ñoo complot mais li nga xam ne dem nañu ba xam ko mooy waa Front National de Résistance muy kuréel gi fi nekkoon avant Yewwi Askan Wi ak wàllu ñoom ñoo ko ne mbir mi boo ci bëggee génn jiiñ ko Macky Sall accusé ne Macky moo moo def lii waaye yow sa yónnewu ci kon lim ne dañ koo complot ci xalaatu politicien lañ génn pour moom setalu deram ay da li garaaw mooy un fenn nit ñi ci ne dafa doon faju ji ndax aji saar ñoom du ñu fajee fenn ne dafa amul xaalis moo tax mu dem fa fenn ci complot bi ñett yépp tax na fukki senegale ak ñeent faatu ay milliards yàq ci réew mi nit ñi seen seen fi di dem loolu c'est extrêmement grave c'est pourquoi may jàpp ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi di ànd ak Ousmane Sonko ñaar yi rek moo dal benn xamoo dara wala nga di naafeq bu mag waaye lii mu du lii mu def moom rek moo ko def kenn kenn kenn raxu ko ci loolu nag moo man moo ma ci metti moo tax ma jàpp ne may ñaan yàlla nag yoon ah wax dëgg ñu seet ba xam ndax lañ koy la ko wax ne Xali Njaay kii ay saa jiñ dëgg loolu dëgg kooku beneen affaire waaye moom li mu def Sénégal moom jàpp naa ne fokk yoon atte ko parce que nag ñi faatu ñëpp Ousmane ko moo leen rey te ci fenn rek la leen rey loolu moo métti na woon trop mais rapport médical bi xam nga nee na viol amul rapport médical bindut loolu xam nga xam nga Sénégal dafay réew mu neex quoi gis nga rapport médical xaaral maa rapport médical du prouver viol du prouver ñàkk a viol aji boo doon amoon sa jabar ngay séy ak moom ngeen amay doom ba benn bis ngay séy moom mu bañ nga forcé ko séy moom da nga ko violé loolu rapport médical bu ñëwee lan lay wax dama lay nettali benn histoire bu am bu xorom am na benn boxeur bu ñuy wax Mike Tyson dafa am benn xale bu jigéen bu mu àndaloon guddi ñuy bég ñuy fo di fo di fo di fo ba ba sëy alors bi ndaw si pare génn génn dem ne dama violé Mike Tyson dama violé alors Tyson bi mu ñëwee ci juge bi di wax mu ne ko man maa moom ñoo àndoon di di di sëy bon am na jamono joo xam ne dem na ba ne ma arrêté ma defee ne rek dafa kontaan ma continuer juge bi ne ko ba mu ne la arrêté rek la ca tegul lépp viol la kon viol du affaire loo xam ne euh, euh, certificat médical dina ko bi des mooy am na fi ku ñuy wax Californie am na jigéen bu ko fi jiiñ viol ñu dem xool ndaw xale bu jigéen bi ndaw gi ne woon ci moom dara ku ci kon rapport médical boobu wane na ne ndaw waa ndaw si waa ji sëyut xale bi parce que sëy moom bu amul rek rapport du mën a am euh, kii viol du mën a am mais même rapport boobu ñuy wax bu Californie bi am médecin bi def na erreur parce que viol même sa catu baaraam boo ko dugalee ci awru jigéen ci lu ko neexul rek violé nga ko kon encore une fois nañu bàyyi waxu caaxaan yooyu. benn bi ci des mooy rapport boobu ñuy wax gis nañ ci man yu médecin moo ko wax mu ne prélèvement boobu mu def nag li mu ci woon pour ñu def test ADN Ousmane Sonko ñu ne kaay def test ADN mu bañ te nag wolof def ne werante xooxante ki tubéy suñu la jiiñee viol te nga am possibilité wane n sa yow moom la nga mooy def ko. soo nag Sénégal da gis ñu naan non ki accusé moo war a indi ay preuve am gis nga ñun réew mi ñu bokk muy Sénégal nit daanañ ko fi tuumaal mu waat ci alxuraan ne defuma ko kon kooku mooy setal boppam nit daanañ ko fi tuumaal mu mu mu saa mu mu mu xam weñ ba mu xonk coy mu mar ko ne liñ may jiñ defuma ko as gor buñ ko jiñee tuuma bu toll ne viol mu am possibilité setal boppam wecc muy def test ADN mu bañ koo def am na lu ci lëndëm aji mbenn Euh, waaw ba tey ci Ousmane Sonko ci sorti bi mu def fan yële ca Kër Massar mooy euh, meeting bi mu fa mujj bi mu fa def ñu dégg ko mu ne bu Macky delluwul ginnaaw Macky dina jël bakkanam wala moom mu jël bakkanam ndax def na testament wam ba pare yow nan nga comprendre. Ah, loolu mooy li tubaab di wax femme faronade mooy xëble xam nga euh, Ousmane Sonko nag c'est un homme politique gis nga ay Aïda homme politique ñu ko ci wax président de la République wala ay diffamation mo gën ci viol parce que tëj viol c'est un crime la day je crois que xeyna nous ñu japp ko rek ci mbirum mais en réalité bu vous ni le bakkan je crois que parce que Macky c'est le président de la République du Sénégal c'est irresponsable c'est inacceptable parce que ñun ci état la ñu nek nek ci démocratie di politique mais li ci gëna metti ay da moy ciol limi bari bari yar yépp muy bu mbay bi ak bu aji sar bi ben bu ci nek Ousmane Sonko soit mo wax lu mu wërta wax wala mu def lu mu wërta def bi yow no yore ñaari ponkal yi jek bàyyi fa dem di sét ay xalé yu jigéñ di la bëss ba ñu néla da nga no violé au lieu nga assumer ko dem ak ñom tribunal ngay wut koku ko ko ko ci takal bam indi jafe-jafe lu ko dara rek moo ko parce que euh, kër cité kër góor gi am na ñuy faj këram nga mu dëkk am na ñaari ñaari jeeg bu fekkee daa yéen ay foroté mën nañ koo foroté mais bàyyi leen fa dem ci ay xale yu jigéen bañ jiiñ la fa liñ liñ ko jiiñ je crois qu'il aurait dû avoir l'honnêteté le courage d'assumer qu'il a commis des une des fautes est gisoo ne yi dafa xaw a bàyyi xel Ousmane ko ragal ko moo tax euh, tout le temps muy wut euh, fu muy jaar pour jot ci moom bamou mu bañ ci élection yi. sonna li nga wax c'est très grave li encore une fois il faut peser vos mots vous les journalistes là quand vous posez des questions parce que question bi dafa am lu sous-entendre affaire u diggante ma Mbaye ak Ousmane Sonko lan mo ci yoon Macky Sall Ousmane Sonko ma Mbaye la diffamé ma Mbaye moo porté plainte loolu lan mo ci yoonu Macky Sall Adji Sarr Ousmane Sonko la porté plainte porté Macky Sall Macky Sall portéwul plainte Ousmane Sonko kon muy ñaar yi benn bu ci nekk rek boo ko demee ba ci biir tëg bañ ci jiital ci am ci xel ak xam-xam da ngay xam ne Ousmane Sonko moo def lu mu war def wala mu wax lu mu war a wax encore une fois dans cette affaire là ko waa Yewwi Askan Wi waxoon ne ko politiser ko mel na nag yéen journaliste affaire boobu daf leen a laal c'est-à-dire on a élaboré un, un, un des de langage jaarale ko seen gimiñ yi ngeen dugal ko ci boppu nit ñi muy muy la notion de complot su ko defee lu xew lu ne rek da ngeen cey xool ndax Macky Sall mooy jéem fa dànqal Ousmane Sonko alors ko problème bi ñaar yi am benn bu ci nekk le seul responsable c'est Ousmane Sonko gis nga affaire Adji Sarr bu amee un comploteur kenn rek la muy mag muy euh, comment il s'appelle Ousmane Sonko waaye du keneen keneen complot wu ko. Euh, allentin nag moom daal ne lii mën naa indi guerre civile ci dëkk bi di ñaan ñu toog waxtaan ba yow am nga sax loo ko ci wax. mom de day dundé tension manam lu ñu wax li rànc de la tension manam de mom eh, eh, musibe mu am de ci moo da koy de ci dund de ci wut al mais li wax c'est irresponsable ñaari sénégalais yu am problème Adji sa doomu sénégal la xalé bu dëkk fi ci Petite Côte di ñominka yaayam faatu muy jirim ñoo ndakaru di mbindaanu ñu dugal ko ci dëgg ay bëssi goor ba li dal ko ci

boo bëggee jàmm doon ne bu buñ ko attee dañ dana andi guerre civile xam nga nit ki même bu fekkee da ngaa far ak moom danga am nga am fulay wax ko dëgg parce que dans cette affaire là début ba ci léegi problème bu ci am ci kenn rek la jógee mu Ousmane Sonko moom moo fenn Sénégalais yi ne Macky Sall daf ko complot nga Macky Sall Ousmane Sonko bu ne woon Adji Sarr moomu kenn du ko wuyu même bu ne woon ay Mamour Diallo moomu complot au début kenn ko wuyu mais lim ne Macky Sall Antoine Diome Sëñ Bassirou Guèye moom ñoo ma complot muy complot d'état pour lu ma bokk ci élection alors que baatu complot ci biir rank réunion bu amoon front national de résistance ñoom ñoo ko ne yëf yi taxal ci Macky Sall bu ci bëgg génn mu taxal ci Macky Sall pour génn ci taxal ci Macky Sall pour seetalu dërëm ba rey fukki nit ak doomu Sénégal ak ñeent yàq fi aljur jeex euh, jàpp nga ni ak ni euh, fan yi dëkk bi yëngatoo ba jëm nar a jëm 2024 est-ce que mën nañ ci organiser ay élections présidentielles <coughs> ah waaw man de maa ngi jaan ñu respecter le calendrier républicain maanaam yaar yi bokkuñu nañu leen nañu ko ate mais ate boobu du mën a yàqal dara ci élection yi am parce que ñaar yi bokkuñu bii moom Adji Sarr moo am problème Ousmane Sonko waaye du sax waa Pastef ñu am problème ak état non je crois que man de personnellement jàpp naa ne élection daa war a am ci réew parce que nag élection mooy jamono joo xam ne ci la askan wi tànne ki muy dénk réew mi su mandat Macky Sall jeexee dañ ko war a renouveler soit Sénégal yi fal keneen waaye gëmu ne nag loolu mën na ci yàq dara en tout cas moi personnellement je ferai tout

député bu bayi sa parti da ngay ñàkk sa manda muy démission ñu jàpp ne ñenn ñu jàpp ne démission mooy nga bind ne bàyyi naa loolu démission la waaye mënees naa bàyyi parti te doo ko ko bind. autrement di li ma jàpp ne moom la def mooy li wolof yi wax mbëtt mi du ma lekk ci ci yàpp wi waaye dinaa naan ci ñeex mi autrement dit Aminata Aminata Touré triche avec la loi. bàyyi APR bàyyi mag Sall bàyyi benn ba contre leen mais que dafa jàpp ne tant que bindul ne bàyyi naa bàyyi mu ne su ko jàppee comme ku démissionné mu tricher avec la loi maintenant ñoom dàq nañ ko li ma xam nag te man koo wax waar réew mi mooy article 60 bu ñëw ci constitution mu ne pour que député bu jógee ci partem dem day ñàkk mandaam président Abdoulaye Wade moo ko dugal ci constitution bi loolu nag dafa am cosaan gis nga diggante ak Abdoulaye Wade dafa dem élection 78 am 18 députés kéro bi Abdou Diouf remplacer Senghor 1981 1er janvier 1981 ak ba 1983 diggante bobu juroom ñent député PDS jóge bàyyi nañ Parti démocratique sénégalais dem fekki PS groupe Parti démocratique sénégalais doxe ci naax saay Abdoulaye Wade giñ suma amé baat ci réew mi dinaa fi jëlee la transhumance parlementaire maanaam député bu bayyi parti dem fenen bi polo mu duggal ko ci constitution bi kon en gros l'esprit de la constitution li ñu ci député bu jógeti bu baye partem day baye ndomba tank ba fa ko jox maintenant nag dégg ñu bari nan benno amul manam maanaam affaire amul député benno moom moom député loolu wax ko amul xam-xam la coalition nit du ci bok coalition ay parti ñoo ciy bokk waaye nag bu fekkee da ngaa bokk ci parti parti ba indi li ci coalition ba nga am ci ndomba tank so demee ba baye parti ba wax deug yalla waroo toog sax ba ñu naan la indi post bi ni Macky Sall defoon jàpp naa loolu mooy jikko góor mooy bi ko Pérez bund xataalee dafa bàyyi assemblée nationale démissionné ci poste député démissionné ci poste conseil municipal ak maire de maire de Fatick je crois que lu mel noonu la Aminata Touré waroon def. waaw Aminata Touré kat dañ ko dégg mu ne moom dafa àndul ci position président pour nekkaat candidat loolu moo tax ñu koy teg lii lépp ñu ko teg jamono ji loolu moom xam nga man mënuma ci wóoruma ndax. bu fekkee daa nekk ba assemblée nationale jàll mu door a contre mandat bi kon ndax bu ko fàtte nag yow itam Aminata Touré moo nekkoon tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar ah xanaa bu bu fekkonte ne waxoon na lu nit ñi dégg ca jamono bi fekkente ne dañuy bañ ku dañuy bañ ku bañ troisième mandat kon Macky Sall xanaa du ko jox euh, nam tuddati du ko def tête de man day wax dëgg yàlla bi ma nee wun tam troisième mandat dàq na ma ci cabinet am na ma ci partem Macky xamoon na ne

n'est nekkuloo opposant pour le Sénégal mais pour ce mbiri là la man nag yu mel noonu daanaka nag jëralu ma di wax lu bari. Euh, waaw ñu gis ne PDS ñoom topp ñu waa opposition ci motion de censure bi. Mhm. tey jii appelé la majorité bi ba ñu génnee Mimi assemblée nationale. est-ce que mën nañoo wax ne kon famille libérale bi dañoo daje ngir mën conserver pouvoir bi. ah pour le moment je n'ai pas amaguma ci benn information xam naa li nga wax dëgg la woote wuñ mo motion mais ñoom la ñu wax mooy ñi doon def motion de bi dañ leen ko yëgalut moo tax ànduñu ci ci mbalum Aminata Touré ñoom nee nañ ils sont cohérents avec que ñoom bi ñu ñoo d'accord Mbaye Moustapha Cissé Lo ak euh, kon il est normal que bu fekkente ne beneen député dafa def lu loo xam ne ñoom la may Ndiaye defoon ak Moustapha Cissé bu buñ koy jëlee assemblée ñu d'accord ci mais rapprochement famille libérale moom wax daal la yëgaguma ko bon man nag ginnaaw man dàq nañ ma ci alliance pour la république bokkuma ci PDS bu ñuy rapproché wu seen mbir la du suma mbir am te ko nag su ma sañoon diggante Abdoulaye Wade ak mag Sall wax dëgg yàlla mu gën a ratax ma sañoon daal la ci sëñ Mountakha doxoon jéego yi mu ci dox ñoom Macky Abdoulaye Wade aussi dox ci jéego su ma sañoon Macky Sall aussi dox ciy jéego maanaam dem seeti président Abdoulaye lu ñu seet nu ñu mën a waxtaane suñ mënee gindikoo ba mën a ànd ci politique ñu ànd suñ ko mënut tam ñu gindikoonte rek en tant que nit ak nit parce que am na fu ñu jaar foo xam ne jàpp naa ne du lu rafet seen diggante yàqu ba faaw. waaw ñu gis ne tali bi mi ngi continuer di jël ay bakkan ba léegi. Mhm. gouvernement bi jël ay euh, série wu mesure ci ginnaaw accident bu metti bi amoon si kilo. ñuy bari daal ne nag ci transporteurs yi dafa am dañoo am lu leen metti ndax précipitation la waroon nañoo mën a toog ak ñoom waxtaan balaa ñuy jël yenn mesures yi ndax du leen arrangé. waaw xam nga conseil interministériel bañ koy def maanaam ñi nga xam ne ñooy acteur du transport ñëpp nga fa woon. bañ jëlee les vingt deux mesures fa la leen fekk ginaaw ba ci liñ jóg ne ñoom am na ci loo xam ne d'accorduñ ci def grève mais li am solo rek d'abord maa ngi jaale maa ngi ñaanal ñi faatu yàlla na yàlla xaraaj jënd di leen jaale seen bokk gis nga ay daa mbirum transport en commun des personnes moom la état bu Sénégal war a jël en charge gis nga njaaga njaay yi ngay gis fii ñuy jóge Europe ñëw fii Europe ku ci dugal ab xaj sax ñu jàpp la oto yooyu sëf nit tax koo jóg dañ koy jënde Europe bu ñu ñëwee transformé ko def ci ay fenêtre def ci ay Versailles teg ci ay porte bagage di transporter ay doomu Sénégal loolu moo jaaduwul man li ma gëm mooy la solution la plus radicale mooy gouvernement bu Sénégal but lu war a mat juróom benn junni bus ñu jox ko Dakar dikk nit ñi di ci dugg di tukki te ñu jógee fi Ndiaye ak cette place du pour transporter ay aadama man laa jàpp ne loolu mooy la mesure la plus radicale le transport en commun des personnes est bi jël en charge ni gouvernement du Sénégal di pour am pour am pour que wa di meuna a ci nu gëna yomb non la pour que réew mi dans de bonnes conditions de transport lolu moy débat de fond bi mais fi place même si daw digënté 8h midi yam ca accident ci encore une fois je crois que la mesure la plus radicale nga état bi jël le transport des doomu transport doomu sénégalais yi ñu dundiwaat ci des bus climatisés regardez yow kañ kañ nga mës a dégg ay bus touristiques comme ni ñu koy waxee ñu def accident ci réew mi pourtant ay nit a koy dawal comme ay sénégalais kañ nga mës a dégg yàlla bu ko yàlla def ay accident bu impliqué ay Dakar dem dikk bi nga bi ñu commencé léegi Sénégal dem dikk mais ñi ciy dugg mais jàmm la ñuy dem. kon encore une fois gouvernement du Sénégal moo war la responsabilité pour aar les ñi Sénégalais yi ñu bañ leen a ak des ak des transporteurs véreux, qui xam ne yu cupide nga xam ne wut alal moo leen ñuy lor Sénégalais yi ñuy faatu faatu bi ñuy faatu man daal loolu noonu laa ko sama pour man le gouvernement n'a pas encore pris les bonnes mesures. waaw ñu gis pour une question d'équité euh, d'équité mm-hmm. FMI dañoo jox ndigal Sénégal ngir ñu le prix hydrocarbures mais ñoo ngi constaté que ba léegi prix transport bi mu ngi yokk nan nga jàngatee loolu. en fait yëf mi néewul gouvernement bu Sénégal yokkal daf ne ko nga bàyyi subvention bi nga daan def ci carburant bi nga waaj nga dindi ko évidemment boo dindee carburant subvention bi ah euh, li nga doon subventionné nga wax ne ki consommateur bi moo koy fay day yokku kon yokk am na mais du FMI moo yokkuloo Sénégal daf ko ne bàyyil subvention Sénégal dindi subvention bi la ma waroon subventionné léegi ñu bàyyi ko ñi nga xam ne ñoo ñoo am.

pour que mu bañ mu we nit ñi ñu bañ a yokk paas waaye nag Sénégal bu ñuy subventionné dañuy subventionné ñëpp kii am ay milliardaire bi ñu di ko subventionné eh, super am mu dugg ci watam 4-4 tal climat sërëm en même temps ñu bëgg a subventionné ab car rapide je crois que lu mel noonu dafa laaj gëstu au lieu que ñuy trans ñuy subventionné pour moi le carburant dañoo waroon subventionné le transporter muy nit ki nga xam ne muy tukki di dem ak dikk moom ñu fexe ba li mu waroon na fay mu bañ a mu bañ cher ci ci poosam te du lor ki nga xam ne moo ko yóbbu donc xalaat bu rëy rëy la laaj mais ni ñu koy doxalee nii bu ñuy subventionné subventionné ñëpp alors que ñëpp soxla wuñ ko par exemple ki jënd abootu particulier am di ci doxi soxlaam waruñu ko waruñu ko subventionné par contre le transport en commun war na ko mën a subventionné bu ko defee paas bañ a yokku ñu jógee banlieue di ñëw ndaxaaru dugg tata wala yu mel noonu wala wala Ndiaga Ndiaye wala wala wala wala wala euh, car rapide ñoo ñooñu jàpp naa ne mën nañoo subventionné transport boobu te bañ ci ñi nga xam ne ay voiture particulière lañ même la même chose pour l'affaire u carburant bi aussi yow noo mën comprendre nit ki yor këram yor fukki climatiseur am alal ju mën a fayee courant ñu di ko subventionné pendant ce temps am na koo xam ne xëy na moom euh, courant bi euh, at mi du ci sax utiliser du ci consommer cinquante mille francs kooka jara jara subventionné parce que moo néew doole wala ñu subventionné ñi nga encore une fois gis nga ay dem ben réew mi dafa laaj daal ñu waxtaanaat parce que jàpp naa ni ni ñu doxale nii moom alal ju bari ju yàqu la te du jural njëriñ askan wi quoi euh, waaw suñu question bu mujj rek la ñuy ñëw muy euh, livre cheikh yérim seck bi nga xam ne yëngal na jamono ji fan yi yow nan nga gisee livre boobu waaw dëgg yàlla euh, liiraguma ko man nag du commenté livre bu ma liirut man dama xam nga nag Sénégal da ngay gis koo xam ne mënut ta bindu turam ci français di commenter livre man na yooyu du ma jiitu wax dëgg yàlla liiroo gu ma ko su ma ko liiree am na ci yu ma ciy dégg mais yi ma ci dégg ça ne me suffit parce que man livre su ma koy liir ñetti yoon laa koy liir door ko commenter dama koy liir horizontalement verticalement et diagonalement xam lan la kii bind lan lan la bind ak lan moo ko tax di bind boobaa dinaa mën a commenter mais pour le moment wax dëgg yàlla liiroo gu ko kon du ma li may ñaan nag mooy fekkente ne. da caa feeñal rëq-rëq yoo xam ne dafa concerné ni ni gouvernement bi yore réew mi gouvernement bi moo war a tontu tontu ba nag mooy surtout bu fekkee rëq-rëq yi lu am la ñu jubbanti ko loolu moo ëpp njëriñ quoi. Euh, sa kàddu gu mujj nag euh, ngir Sénégal. waaw ñu wax kàddu gu mujj ci émission bi ñaanuma yàlla mu nekk sama kàddu gu mujj nag yow itam ay <laughs> mami nan gisante waat beneen yoon waay kon bo voilà maa ngi lay gërëm encore une fois ci invitation bi. Mm-hmm. ci bég naa di la nuyu nuyu kan mi nga àndal nuyu waa responsable lu diaspora TV bi di nuyu suñ mbok yi nga xamni ñi ngi bitim rew te dinu seetaan bu fekkee liñ fi wax deug la te am jariñ. ñu sant ko Yalla buñ ci juumee ñi ngi jéggalu ñëpp encore une fois je vous remercie vivement. jërëjëf ah, euh, Moustapha Diakhaté lañ doon dalal tey suñu mbokk internet yi di kontaan ci di leen indil émission bu bees tàkk bu ñuy woowee gestion de la cité di leen jox rendez-vous ci yeneen i thèmes jërë ngeen jëf. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. Euh, d'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement à, euh, au programme du présent Macky Sall sur le programme euh, Dawi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place euh, l'année dernière permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comment de dépôt, comme retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Sudubet et euh, Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la dans cette, Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LENAS. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONAS a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONAS pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONAS. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise.